ñun ngay xasida yi tey bëggul ku dul yi ëllëg dale tey sëriñ bi rek gañu saf yi tey bëggul ki dul kin may ngam yi ëllëg dale tey bi rek gañu saf ñun ngay xasida yi tey bëggul ku dul kin may ngam yi ëllëg dale tey sëriñ bi rek gañu saf xasida rek ba ñun ci fa kamar xanuñ ci góob di ko dal sëriñ bi rek kañu saf xasida rek ba ñuñ ci xiif jiit damay làmp faal Seex Ibra Maal Seex Ibra Faal ma kamal kuy wër la neen na ko jël sëriñ bi rek kañu saf suñ jiit damay làmp faal Ibra Faal ma kamal ku la neen ko jël sëriñ bi rek gañu saf barus dinaa ñi kafe sëriñ bi duñ ko kafe te luy ndigal ñu jëfe ñu sax bu rus di naani kafe sëriñ bi duñ ko kafe te luy ndigal ñu jëfe sëriñ bi rek a ñu sax dañuy durus di rajas bu gis njariñ li ko jas ba ñun ci it bu ñu xas sëriñ bi rek nga ñu sax waxtaane Bàmba bu wér la def mu doon li ñu war ba ñu ci dox di ko wër sëriñ bi rek nga ñu saf waxtaane Bamba bu wér lañ def mu doon li ñu war ba ñu ci dox di ko wër sëriñ bi rek ñu saf am na ci ñuy bind it xasiida yi ci kayit yi a dañoo tëdd jot sëriñ bi rek nga ñu saf am ci ñuy bind xasiida yi digga yit yi gaay dañoo dëdd jot sëriñ bi rek gañu saf àdduna lañ dëdd wéy amul ci bis bu ni xëy di wut kudul ki nu may sëriñ bi rek gañu saf ñi xam di ñépp a ñi kañ ñi réer dañooy ñi ñu bañ di ñuy xasak di ñu xañ sëriñ bi rek gañu saf ñi xam di ñépp a ñi réer dañooy ñi ñu bañ di ñuy xasak di ñu xañ sëriñ bi rek gañu saf bu ñuy kañak ku ñu bañ xamuñ ko ak ki ñu xañ amul ku ñuy mën a xañ sëriñ bi rek nga ñu saf ku ñuy gañak ku ñu bañ xamuñ ko a xañ bi mooy ki ñu saf ko xam li mu saf la neen du ñu saf bi rek nga sun xol yi day dëkke tooy di nooye kay dëkke jooy di ñàkk sëñ bi ni looy sëriñ bi rek kañu saf sun xol yi day dëkke tooy di nooye kay dëkke jooy ni jàkk sëñ bi ni looy sëriñ bi rek kañu saf xataan de mooy sunu col ak yaaya nuuru ci kol ma toog di yoon sunu dol sëriñ bi rek dañu sax te di waxe te koy jëfee ka doxe tubaab de duñ ko waxe sëriñ bi rek dañu sax ku di féete la suuf li di sukk ci suufa di sëgg bay sukk boob sëriñ bi rek dañu sax duñ fent duñ waxi jëw duñ ree di kekku ca kaw ku gis di ko daw sëriñ bi rek dañu sax suñ yitte moo di gërëm di sonn ngir di ko am du naaki dërëm sëriñ bi rek nga ñu saf dañuy durus di xalam sëriñ bi sax di dëggam sax dàkk sax ku mbégam sëriñ bi rek nga ñu saf dañuy durus di xalam sëriñ bi sax di dëggam sax dàkk sax ku mbégam sëriñ bi rek nga ñu saf yal na nu saj yal na nu sëñ bi defal te jàpp xel yi dalal sa yitte moo di xamal sëriñ bi rek nga ñu saf yàlla na nu sëñ bi defal te jàpp xel yi dalal sa yitte moo di xamal sëriñ bi rek ñu saf wax ji ki wax ko turam lemin la baara mi gëm yéeneem demay ñépp xam sëriñ bi rek ñu saf wax ji ki wax ko turam lemin la baara mi gëm yéeneem demay ñépp xam sëriñ bi rek ñu saf